tey laa gën a am envie way tey laa gën a mën a am envie mener carrière sama carrière mu jëm kanam mu ci yàlla jàppale justement yàlla def na ma génn dund France tuuti gis leneen dégg leneen dund leneen Sénégal laa jóge def naa fi carrière xam naa xam naa lu ñu fi jotoon a liggéey xam naa fi ko nit ñi teg ba nga xamante Au contraire, moi je, je, trouve que je me suis enrichie en matière de dans ma carrière. Le fait ma génn dundu leneen def leneen ak booleeg li nga xamante ne moom la yàlla defoon ñu ñu liggéey ko loolu buñ ko boolee je pense que expérience la boo xamante ni ça m'a beaucoup enrichi sama carrière ba j'ai envie de continuer de dévoiler li nga xamante ni moo moo moo ma arrivé ci diggante bi en fait loolu la. Alors, euh, votre expérience à mi-parcours, qu'est-ce que vous en pensez depuis Waflas, Benaton le Tei euh, Est-ce que là où tu t'attendais être nga toll wala pour yow waroon nga mën a fii foofu nga toll. man xawma lan la c'est-à-dire bu ñu fi nga waroon toll man pour je suis bien je suis bien parce que. Euh, dorénavant li nga jotoon a def am na nit ñu nga xamante ne dañ ko apprécier tey macha allah bari nañu lool ñi ñi apprécier musique bi ñu doon def macha allah ndax musique boobu moo ñu yóbbu fu ne bu ñu mënee carrière boo xamante ne près de 30 ans li ñu doon def moo ñu yóbbu fu ne te aussi bu yàlla defee ñu tukki am leneen lu ñu gis lu ñu dund. Euh, je def naa ay scènes yoo xamante ne bokk kook ay artistes euh, def ay ay partage lu euh, bëri ma jële ci enrichissement ci sama sama carrière je pense que loolu mooy musique man déjà enrichissement bi ngay enrichir en tant qu'artiste le fait que ngay am ngay continuer di épanouir musicalement ci li ngay def loolu man laa jiital d'abord quoi loolu moom la li may proposer àdduna loolu mooy gën a nekk li gën a am solo ci man nit ñi ñu bari ñu ngi koy ñu ngi koy recevoir avec gaieté avec plaisir pour moi c'est ça la réussite en fait leneen lu ñëw rek leneen la quoi nañu fi yàlla bàyyi ñuy gudd fan ah di yàlla di ñu sàmm ñuy continuer di faire plaisir ñi nga xam ne loolu moo leen neex vraiment ñu ngi sant yàlla voilà après nag on, cherche toujours à, aller de l'avant ah même même ñi ngay dégg ñi nga xam xëy na sax ñoo ma gën a nekk ci kaw ñu leen di dégg dañuy toujours continuer di bëgg di aller de l'avant parce que àdduna loolu la demee doo bëgg a rester di nga rester toujours da ngay bëgg di aller de l'avant te man loolu laay def comme ni ko ñëpp di defee mais sachez que euh, au contraire moi dama sentir euh, bonheur plaisir ci li may def le fait que di ko partager ak nit ñi le fait que ma acquérir ak expérience bi ma am ci diggante bi je m'épanouis je suis je suis bien au contraire te yàlla def yàlla yàlla may ci kanam surprise yaa ngi ñëw et vous allez voir. la dernière question c'est juste une appréciation euh, parce que nous sommes euh, en période Covid et on a vu euh, artistes euh, comme Jacob Devarieux, Manu Dibango la Covid et j'aimerais ces artistes-là vous auriez à vous Et vraiment, quel commentaire vous en faites Alors, après, euh, s'il y a des journalistes aussi qui vont faire des interviews, on peut faire des interviews. Et merci encore d'être là. Allez-y,